asalaamaaleykum mbokku internet du ñu faral di suivre di bàyyi xel suñu ay vidéo tey jii ñu ngi leen di présenté produit bu am solo produit bi ñu leen présenté dafa concerné couple yi nekk di sëy di faral di dund jafe-jafe yu tar lool yu metti ci wàllu rapport sexe mbokk yi suñu waxee jafe-jafe ci wàllu rapport sexe dina dal góor dina dal jigéen mais jamono ji góor ñu bëri dañu am problème impuissance suñu waxee impuissance mooy góor gi nga xamante ni pour awraam jóg daf koy jafe. wala bu jógee du dëgër wala bu jógee day gaaw a dellu euh, suñu waxee wàllu éjaculation précoce mooy ki nga xamante ni awram mën na jóg mais ci préliminaire yi day gaaw a daanu wala su góorgóorlu ba pénétrer ba yee bànneex bi muy yee ci jigéen ji muy seexal dafay gaaw a daanu su ko defee loolu mën na jur complication bu doy waar ci digganteem ak jabaram mën na jur ñuy am ay jafe-jafe ci ay xuloo wala mën na jur sax jafe-jafe tax jigéen dem di uti keneen ko ko satisfaire Ah, mbokk yi jafe-jafe ci wàllu rapport sexe dina dal góor en même temps dina dal jigéen jigéen ñi nga xamante ne dañu am jafe-jafe ci wàllu yëg baneex jigéen dina nekk ci préliminaire di ceinture bànneex mais pour kanamam tooy problème la te jigéen bu kanamam tooy ku góor ki bu pénétrer mën na ko gaañ ka mën na dagg te loolu mën na ko indi problème infection jigéen buy yëg li nga xamante ni mooy bànneex day tax muy am envie di def rapport bëri na jigéen ñoo xamante ni duñu am envie di def rapport parce que li ko waral mooy duñu yëg bànneex yéen góor yi am problème impuissance wala éjaculation précoce wala yéen jigéen ñi am problème mu yëg bànneex ci seen biir néegu sëy ba du ngeen am envie pour que seex ak seen jëkkër contact lañ ci suñu ay numéro produit di ñu leen di jox bio la bio naturel la amul benn effet secondaire incha allah rabbi bu ngeen jokkoo ak ñun di ngeen am satisfaction totale jërë ngeen jëf.